Macky Sall tey ku ne xam na ne doxalin gi muy doxal ci réew mi doxalin la goo xam ne gàcce la pour sénégalais ñun yi ñu doon mais gàcce la pour suñu maam ak suñu mag ak suñu baay yi nga xam ne liggéey nañu pour démocratie Sénégal dañu ko xeex lu ëpp juróom-ñaar fukki teg Sénégal ci yoon suñu démocratie ak lu mu suux suux suux ñu ngi koy joyanti ba moom Macky Sall mu mën a jot ci réew mi mais lii mu def tey du luy honorer Sénégal lii mu def tey sénégalais bu nekk war nga jóg gëm ne résistance dafa jot bu kenn yóbbu samay wax nag résistance laa wax dans un pays sans fois ni loi. Mhm. la place des honnêtes citoyens c'est la prison comme ni ñu ko bëgg defalee Ousmane Sonko et dama wax ne Ousmane Sonko tey moom la mais suba kan lay doon mun naa doon man mun naa doon yow mun naa doon képp koo xam ne mu ngi tey jamono ji ubbi ay noppam di déglu li may wax parce que ñii ñu seqal du ñu ay gentleman ay nit lañu ñoo xam ne pouvoir daf leen omnibuler ay nit la ñoo xam ne yaakaar nañu donkaasi gi ñu toog dañ faa war a nekk di mos di nguuru alors que Sénégal maamu kenn moomu ko bàyyi kenn moomu ko. Mhm. Sénégal ñun ñëpp ku ci nekk dafa am loo xam ne danga ko ci def. ce que Macky Sall est en train de faire les hommes religieux war nañu jóg ne ko arrête parce que nag ku artuwul di nga àtte kilifa yi xeltu ci Sénégal ñi toog seen roq jot na ñu jóg parce que lii ñu def Ousmane Sonko kenn yaakaaru ko woon. et loolu nag dafa am lu ñu koy ubbil li ñuy ubbi mooy trouble à l'ordre public ne ko participation à une manifestation interdite yóbbu ko section de recherche entendre ko dem yóbbu ko def ko euh, defeere ko mu jàkkaarloo ak euh, le procureur mu dóor ko mandat de dépôt moment boobu bu leen neexee à tout moment mën nañ ko génn ci kaso bi dem yóbbu ko ne ko demal gis juge d'instruction maanaam li mu doon sàkku ci ay àqam yëpp tey jii Macky Sall avec benn équipe boo xam ne toq ci ay nit lañu ci réew mi ñoo jël le Sénégal en otage jël le pays en otage bëgg ko def seen moomeel bëgg ko def réewu Maysa Tend Joor di bëgg ko def réew bi Biram Yaasin buubu ba lu leen neex lañ fiy def lu leen neex lañu fiy amal alors les partis politiques les organisations des droits de l'homme ñi nga xam ne ay mouvement citoyen lañu mais surtout ñi nga xam ne ñoo nekk ci ay parti politique ci opposition bi l'heure est grave ku ci toog ci sa roq di seetaan danaan la fa fekk rocc la danaan la xëcc fa nga nekk daal di lay dóor dóor yat wi te bu boobaa doo ci mun dara ce qui se passe est extraordinaire et j'ai encore une fois ça interpelle tous les Sénégalais je dis bien tous les Sénégalais Il faut une rupture progressive, mais une rupture citoyenne. Il faut une résistance citoyenne. Parce que lii Macky Sall di def bu ñu ko seetaanee dana def lu ko neex ci réew mi te bu boobaa waxoon na leen la mu leen waxoon kilifa yi ci réew mi ça veut dire que joxu leen sax gëdd boobu ñuy wax la muy wax naan sëriñ si ay citoyen ordinaire la tey jii gën na ko dëggal parce que bu ñu demee ba nit ki wax ak ay kilifaam ñu yey ko ne ko demal nga wuy ji yoon mu jóg di wuy ji yoon ñu jël les forces de sécurité utiliser leen daal di barricader yoon bi parce que li ñu gis prise d'otage la li ñu gis kidnapping la et ça n'honore pas le Sénégal ça n'honore pas les Sénégalais donc encore une fois la résistance s'impose il faut que kenn ku nekk ci ñun na jóg wane ne lii ñu def Sénégal mérito na lu ëpp lii Sénégal mérito na image bu ëpp lii ñu ñu wan parce que du lii la ñu liggéeyal du lii la ñu liggéeyal Sénégal suñuy maam du lii la ñu liggéeyal Sénégal ñi xeex pour démocratie du lii la ñu liggéeyal Sénégal alors donc la jeunesse de ce pays levez-vous debout pour une résistance pour une résistance Enquête 221 l'information en temps réel c'est ici et non pas ailleurs Enquête 221 le chemin de l'information